asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw bi ñu bokkee mustu ci seytaane ñu ngi sant yàlla bu baax di julli di salmal ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi nii ci biir jumay gël Tapée li nga xam ne moom la ñuy waajal incha allahu taala sunu jigéen ñu tedd yi dinañ leen ci indil ay leeral ñu bàyyi leen kàddu gi ak sunu yaay sunu tant sunu mag Adja Maam Koddu Pay daje nañu tey jii ci wàllu jumaa yi Gueule Tapée grande mosquée bu Gueule Tapée fas yéene suma beneen liggéey comme niñ ko tàmmali woon ñu fas yéene dugg si deuxième phase jumaa yi Gueule Tapée dellu di sant mbokk yëpp ci taxawaay bi nga xam ne defoon nañ ko ci première phase bi ñu fas yéene tàmmali deuxième phase bi ñun waa deuxième génération ñuy woo mbokk julit yëpp si taxawaay bi incha allah fas yéene nañu def journée de collecte delloo ko ci wàllu jumaay ji ñu sant ñëpp di wax ni képp kuy julit képp kuy jullit si wàllu Gueule Tapée góor jigéen rawatina suñu mbokk yi nga xam ne ñooy wàllu jigéen ñi ñu leen di ñaan ne yàlla kuy lebal nanga nga lebal yàlla yàlla rek moo jara lebal ñu fas yéene jublu ci deuxième phase bi ngaan jigéen ñi ñu taxaw ci bàyyi ngénte yi bàyyi takk yi bàyyi ndaye yi ñëpp ndax suñu mbokk maam Roqe Njaay ba ko sëñ Seydi Hadji Malick jëlee da ko laajoon kan mooy sama njëkke mu ne ko yàlla kon ñu ñaan suñu mbokk jigéen ñi ñuy jël lebal yàlla ndeyale yàlla xew yi ndewale yàlla takk yi ñëw si wàllu jumaa ji première phase bi dem na ñu ngi ci wàllu deuxième phase bi xeebuñu ciment xeebuñu fer xeebuñu suuf lu waay am am na mbokk yoo xam ne ñu ngi koy def collecte mobile ci jël oto di dox ci biir koñ bi ñu ñaan daal képp ku gis ñoo xam ne ñu ngi ci biir koñ bi di euh, def collecte mobile ñu ngi lay ñaan loo am nga def ñu ñooy deuxième génération yi nga xam ne ñu ñooy jàppale suñu yaay ñoom Ngunja Fa Adja Fa Diagne di ñaanal suñu yaay Seynabou Guèye suñu yaay Ndeye Cissé yaa ne ne yàlla xare àjjana tey euh, ñaanal suñu waay dawlu yi fi jóge ñu ñu bokkuloon liggéey jàkk ji te wàññeeku leen di ñaanal yàlla xaare leen ci àjjana yu kawe yi te yéex a ñu tey nag jublu ci liggéeyu jàkk ji journée bi nag mm, le 17 la premier euh, matin bi dañuy wàccee kaamil ñaanal suñu waay dawlu ñu Euh, wasifaal leen ba ngoon gi ñu génn ci biti def collecte bu ñu defee collecte bi lu waaye am indi pour yombalal ko nit ñi oto bi nag bu ñëwee ci koñ bi lu waaye am nga génn man nag maa ngi ñaan waa cité bi suñ cité avenir ak euh, Soumbédioune buñ fa yegsee ku waaye am nga génn joxe ko te yàlla tax ndax kuy lebal li ñëpp wax kuy lebal lebalal yàlla yàlla moo jara lebal te li ñuy def lépp pour yàlla la kon nañu ñu ngi ñaan ñëpp génn ci journée bi euh, lebal yàlla te xam ne ku lebal yàlla du nuyul yàlla dina la ko fay loolu daal la ñuy ñaan. di dellu si rek ci deuxième phase bi di ñaan comme première phase bi jàll na ñu ngi insister waat si deuxième phase bi di si woo ñëpp ñëpp ñëpp ci liggéey bi ñu ngi leen ciy woo. di dellu di wax si journée le set bi. journée le 17 bi nag journée de collecte la journée de prière la journée de sensibilisation la di woo suñu mbokk jigéen ñi surtout jeunes yi ñu ngi leen ciy woo bu baax a baax jeunes ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi gis nañ taxawaay bi waaye ñu ngi dellu di leen ci woo ñoom ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ci woo quartier yi ñu wër yëpp Gueule Tapée Fass Colobane Médina Fann ok Cité waa Soumbédioune bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen ciy woo maa ngi ciy woo jigéen ñëpp nag rawatina sama xarit ay tëyum maa ngi ko ciy woo. di leen fàttaliku suñu journée collecte lu 17 bi ñuy def di ci ut ndimbal di dolliwaat ci jàkk ji te xam ne liggéey bi moo laaj loolu laaj laajaat kon ñu ngi ci deuxième tranche bi ku ne la nga defoon gis nañ ko ku ne la nga def gis nañ ko waaye yàlla ku koy lebal doo doyal ñaan yàlla ñu dolliwaat defaraat pour mu mën a yegg ci jàmm ak salaam ñi ma xàmmee nga xam ne gox bi ma féete mi côté cité économique bi ñoom ñëpp ñu ràññee ma ndax may def weeru jot ma dugg laaj leen ñu ngi laajaat seeni ndimbal ndax laajaat nañ ko soxlawaat nañ ko mag ndaw Fann Colobane Gueule Tapée Médina ñëpp ci lañu bokk ak Soumbédioune yëpp ci lañ bokk marché Gueule Tapée yéen ñëpp woon nañ leen ba ci ne Europe ñu ne Europe ñëpp laaj nañ leen ndax seen loxo day ñëw ñu wax ne dàmbaliwaat nañu du doy lundi nag la ñuy commencé am na oto boo xam ne dina wër ci gox yi di ut ndimbal yëgalaat nit ñi waxaat leen fu ñu toll at utaat nimbal ku ko ci gis ku ko ci dégg mën nga génn loo ca dugal ñu jël ba ñu ñu ñaar fukk ba ñu dara kon ñoo moom suñu gox ñoo ko mën a defar jumaa bi jumaa suñu borom la mi ñëpp ñoo ko bokk lu ci waaye def rek yàlla delloo la ko. di ñaan waa diaspora bi lii koleetu jàkka ji nañuy wax rek si liggéey bu njëkk bi yegg na. waaye dañuy ñaanaat beneen liggéey bi ñuy tàmbale nii di ñaan ngeen jàppale ñu si ndax liggéey bi tàmbale na waaye ñuy def collecte lundi à partir de oto bi dina tourné Sigal Tàppe fas Colobane waaye leneen li ñu bëggaat rek mooy ñi nga xam ne ñi ngi si kaw suñu mbokk yi nga xam ne ñooy waa diaspora bi ñi ngi leen woo di si tàmbale nag sama jëkkër Moussa si ñu ngi lay woo si liggéey bi ngeen ñëw ñun ñëpp jàpp si ñi nga xam ne ñi ngi gël tàppe yëpp te nekk si kaw woon nañ leen ngeen ñëw jàppale ñu si liggéey bi ndax tàmbale nañu deuxième partie bi te bëgg nañu incha allah mu am avancement. beneen bi it ñu ñëw si nga xam ne ñun ñi dëkk gël tàppe fas Colobane te nekk si daayira yi lool ñu soxla leen parce que liggéeyu yàlla la te soxla nañu ñëpp def si seen loxo. naka Alaaji Abdu doon waxee naan dafa bëgg ñëpp def seen loxo ci jàkk ji kon jumaa ji jumaa yi ñëpp la te jumaa yi yàlla la bëgg nañu ñëpp def ci seen dërëm ëllëg doo ci am réccu kon yàlla nañu yàlla jàppale ñu yeggale ko ci jàmm mag ñi nga xam ne jiitu nañ ñu ñëpp yàlla na leen yàlla jàppale tàbbe leen àjjana yi fi daw sa ya di woo nit suñu journée la le 17 bu ñu war a def nga xam ne journée prière la ñaan la wut xaalis la tamit di si ñaanal suñu way dawlu yi nga xam ne ñoo ñu jiitu te ko suñu biir di si def liggéey bu am solo di leen ñaan wasifa bu ñu ñaanee pa def wasifa waaw nag wut xaalis tam tax si la bokk tamit nag dañ koy wax man saa yi ma tourné ma naan xaalis tam moo joxee sama carte dama naan xaalis la bokk tamit moom lañ gën a soxla mais tam ñaan ngi tam am na solo tamit di ñaan di wootam waa 59 nga xam fa laa féete di leen laaj tamit di gërëm sama maire yi nga xam ne ñoo may indi ñoom du ñu xaar sax ma ñëw si ñoo ñëw jël ko ñu ngi leen ñaan ñoom tamit ñu jàpp si bi ñëpp jàpp si ak automobile bi bu ñëwee tamit ñëpp jénn ku mënul ñëw si le 17 bi nga ñëw nga bu la oto bu rombee rek macha allah am ñu si topp nga am loo si dugal nga dugal si tamit tamit boo mënulee ñëw tam nga indil ko ñi nga xam ni ñoo la daan laaj nga ñëw indi ko daal ñëpp ñëpp jàpp si. ni ñu jàppoon si première phase bi ba yàlla def si sutura ba mu pare ñu jàpp si deuxième phase bi tamit ba ñëpp jàpp si ñu ngi woo ñëpp waa Diès yeeg daayira yeeg waa Fass ak Gueule Tapée ak Fann ak ñëpp ñu ngi leen di woo grand place yi nekk si gël Tapée yeeg Fann ak ñëpp ñu ngi leen di woo ñu woo ñëpp di woo sama waa kër maam Ndey Ndooy bu Amadou Alsane Ndooy macha allah ñoom euh, Ndey Xadi ñoom Umi Ndiaye ñoom maam Marème ak seen góor Medoune ndax première phase bi dañ ci defoon lu am solo ñu ngi leen di ñaan di ñaan tamit grand place Ndoob Seck ñu ngi leen di ñaan ñooñ tamit macha allah ay nit ñu baax lañ di def lu baax si Gueule Tapée maa ngi ñaan daal mbokk yooyu yëpp waa daayratul moustachidine wal moustachidaat maa ngi woo euh, euh, groupe Euh, comme Eva bu Gueule Tapée te Ajaratu Khady Fall jiite leen ñooñu ñëpp waa Gueule tapp lañ di def lu baax waa immeuble Diez li ko dalee Sante Elisabeth ba ñëw immeuble Diez ma ak suñu mbokk faama Dia ñoo fa ñoo fay nekk di laaj collecte ñi ngi ñaar suñu mbokk El Hadj euh, Sora Mbaye Ndiaye kooku tamit du kuy def lu baax la si Gueule Tapée Pekin Koité ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw taxaw si biir bés. am naa foofu tamit du ñu wax ba jug du ñu fàttewal ko tamit suñu maire monsieur Ousmane Ndoye maire Gueule Tapée Fass kolobaan ñu ngi koy woo si suñu woote bi suñu première phase ñëwoon na ànd ak délégation def lu rëy kon monsieur le maire jumaa gi sa jumaa la yaa ko moom ñu ngi la ciy woo di woo maître Badouka moom tamit nekk doomu Gueule Tapée du def lu baax di woo Samba Ndiaye doomu Gueule Tapée di def lu baax yal nañu yàlla jàppale yal nañu yàlla kàttanal si daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu mbokk yi woote baa bis baa ngoog ñu jàpp lu jiitu journée le 17 di journée de prière suivi de collecte am na lu ko jiitu muy collecte mobile bu ñu def ci biir quartier bi oto boo xam ne dina ànd ak ñun ñu wër ci gël tàpp yëpp laaj leen seen dërëm seen wërsëg ci wàllu liggéeyu jumaa ji dégg ngeen ni ko sunu mbokku jigéen ñi waxee kon ñu ngi leen ci fàttali di leen ko ñaaxaat gël tàppe fan fas Médina ak Colobane wépp nag jullit boo xam ne yaa ngi ci adduna bi di def te yàlla rek tax jumaa jaa ngi nag gis ngeen fi liggéey bi toll te ñu ngi jëm ci weeru koor te weeru koor lu ci nit def def yàlla dala koy fulal ñu ngi dellu di woo mbooleem dayre yi nekk gël tàppe yëpp kolobaan moo xam murit moo xam tiijaan moo xam xaadar ak mbooleem koo xam ne rek da ngay def te yàlla tax kon sunu jigéen ñàngoog woo nañ leen ci journée de collecte mobile bi nga xam ne day tàmbali altine incha allah waaye bëccëgu samedi la 17 mooy journée de prière suivi de collecte lu waay am ciment fer béton suuf ñu dara ñu lépp parce que fii lu fi nit def da nga koy dugal jiital ci sa biir bàmmeel te fële fa doy rek ñu ngi ñaan nga dimbali ñu ci deuxième phase bi gis ngeen fi liggéey bi toll comme ni ko sunu mbokk jigéen ñi waxee kon dinañ ko tàmbali altine mu nekk journée de collecte mobile waaye samedi le 17 mooy bëccëgu ñaanal jullit yëpp ñu teg sunu defee kaamil ba noppi dinañ wasifa sunu wasifa ba noppi dinañ nag waxtaan ci wàllu joxe ci néegu yàlla ki ñu koy waxtaanal mooy oustaz Cheikh Omar Ndiéguène incha allahu taala kon ñu ngi leen koy fàttali waaye lu jiitu loolu rek mooy collecte mobile bi nga xam ne dañu soxla ñi nga xam ne mënuñoo ñëw ci bëccëg bi ñu ñëw ci sa kër nag naan kaay lebal yàlla war nga am cawarte jox ko kon fa tabarakallahu ñu ngi dellu di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla mi dara tawul yal na yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli sutura way jiitu yooyu nga xam ne moom la ñuy ñaanal ñoom ñëpp yal na yàlla jéggal leen yal na yàlla yërëm leen ñiy saytu liggéey bi di ci jàpp di ci def seen alal di def seen dërëm yalla xam na ñëpp yalla gis na ñëpp yal na yàlla yokk seen ndam yokk seen sutura te barkel la ñu dese te may leen wër ak wërle fa tabarakallahu ñu ngi gërëm ñëpp wa sallallahu ala aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu